yée catalan yi ak sénégalais yi indil naa leen nouvelle bu naax bu ñëw ci yéen muy lan lu ñëpp buggoon doon dem bay kaas di xas sa naan non mais kii dafa raciste bëggul suñu sénégalais bëggul africain ak ñoom seen loolu nag mën naa ne après di nga ko tege à côté nag nouvelle bi ñëw dama ciy ñëw salaam gars yi béggee naa leen nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant balaa dara képp koo xam ne abonné goot suma seen YouTube bi abonné ngay liké di commenté di partagé nag effort bi ñuy def di leen jox xibaar matin midi soir moindre chose mooy que ngeen di liker di commenter surtout di partager ñi nga xam ne abonné ñuy abonné loolu dañuy bégal ñëw ci xibaar gi muy kan Michael Ngor Faye ak Mbacke Fall gone tënkee ci mu doon ñaari gone yoo xam ne nii danoo nekkoon ci équipe Barça B bi di fa wëyal ci Marquez di wane fulla ak fayda duo boo xam ne nii duo de fire la mën naa ni mur de Berlin laa koy wax nag dara jàllul te it ñu ngi doon dugal kii di teg coup franc di dóor ci poto kii di dugal macha allah mu doon loo xam ne nii seen bon bonne nouvelle pour pour nous les Sénégalais Xavi jot na leen a woo indi leen ci équipe A bi ci benn tournée bu ñu war a amal foofee ca États-Unis match amical vraiment doon loo xam ne nii ñoom ñaar ñooñu am nañ yaakaar que ni bu leen safi tegee mën nañoo wane fulla ak fayda nag bëgg nañ leen a gis ci meilleur niveau football mondial surtout ci Barça mi nga xam ne c'est un grand club kookee di Michael Ngor Faye ak kookee di Mbacké Fall mi nga xam ne bokk na ci liste présélection Aliou Cissé 55 yi malheureusement nag Michael bokk ci waaye espérons mu bokk ci équipe à Barça bi doon titulaire indiscutable safi jot na ko woo pour mu war a mën a ñëw football ci match amical boobu ñu la nu mu war a mën a demee ma leen di xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee nouvelle boobu xibaar gi di leen xaar ci commentaire nan ngeen a soutenir ci bi nga ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo weñ bi xam naa ni sekk la sant wala jaw soxna torop kii Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime ñoo far mooy moom la quoi ñëw far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waa. mais Bamada. walaay ndeysaan lan nga wax. walaay ndeysaan. <laughs> walaay ndeysaan kese. donc continue comme ça. incha allah merci. yàlla baax na bii laa soxla ah. ci loolu. après daal la nga ah. ah. xanaa après daal la nga koy ministère rek bëgg drapeau Sénégal. mu bëgg kuy baax ministère rek bëgg drapeau Sénégal. Alhamdulillah الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هذا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا lay ñaanal ay Sinois. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax baax. si yaatu macha allah. yàlla lay ñaanal ay Sinois. Sinois. def leen ay bëccëg